aousubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim allahumma ighfir li ma la ya'lamun wala tuaxini bi ma yaqulun maa ngi leen di nuyu yéen uh, samay bokk ak taalibe yi uh, lii nag day muqaddam muqaddam ci arab mooy lu ñu jiital soog a tàmbali wax ji mooy nii ko sëñ bay waxe sëñ bi moo du awa balla moo liggéey jumaa ji ba mu yegg bi mu yeggee eh, sëñ abdou xudos ñëw digle ñu defar ko ñu ñëpp ànd ci liggéey ba lépp lu ñu joxe ñu jox ko moom lañ ko daa jox ba liggéey ba yegg Serigne Cheikh Khady ñëw bi mu ñëwee yokk ko ba mu yaatu lool mel na war ba jamono yàgg nag jamono bu yàggoo moom lu luñ defar day am lu cay yàqu ak loo xam ne lii lu cay sëkk la loola nag la sëñ Abbas ñëw moom it def ci la man lépp góor la ci lool ñépp góor lañ ci taalibi yépp góor lañ ci yëpp ciy góor léegi nag dafa aajo defaraat defar yoo xam ni yu réeréy lay doon moo tax ñu xamal taalibi yëpp bëgg ñu lu ci defar ko ba mel na mbara mel nepp defar gi nag amul kii amul kaa ñëpp noo ci yem teg nañ ko ci loxol ab commission boo xam ne bii bind nañu ko defar nañ ko ba ba defar nañu plan bi léegi liggéey rek a des liggéey rek a des jox nañ ko teg nañ ko ci loxob sëñ Abdou Samad bi dina am sëñ Modou Abal nit la koo xam ne kii doy na ñëpp looloo tax ñu def ko te doy ñëpp jafe na waaye doy na ñëpp ni ma doyee ba teg ko ci loxoom ni la doyee ñëpp ba nag li ma bëgg nun ñëpp nu dem fee teg xeer wi ci ndigalal sëñ taxa mi nga xam ne mooy kilifa murit yëpp ndax ñun nii ko sëñ Bay waxee daanaka rek eh, wax na lépp léegi nag danoo am kilifa kilifa gi mooy sëñ Muntaxa murit moom benn bopp la mi ngi mel ni oto wala saxaar lu mën noon di doon boo dindee motoor ba rek jeex na moteur bi mooy sëñ Muntaxa lu mu dugal nu def ko lu nu tere bàyyi ko te moo ko digal bon nag ñëpp lu waay man man daal li ma lépp danaa ko ci def du ma ci téye dara maa ngi ñaan ko xam ne ki yaakaar nga borom daaru li nga mën nga def ko ci nu def ko ba mel noo xam ne nii ku ñëw dana xam ne eh, la sëñ Touba waxoon ni borom daaru ya maay yow yaay man maay yow yaay man yow mi nga xam ne musunu teqale ko ba ngay gone ba ba nga doone mag musunu tàggali ko sëñ Baye dana ko mën a waxaat <laughs> ndax man mën naa ko fàtte wala ma Bamba ko yar yor ko ci waxtu sixar yi te musa tàggoog moom li waxtil kibari Bamba ko jàngal alxuraan ak xam-xam jàng liggéey la boole woon ba am ndam waaw loolu rek gàttal moom lañ leen bëgg wax ah, dem nag ñëpp ñaanit yàlla def bu yegg te mel na mu war a mel ci barki Serigne Touba ak borom Daaru Muxti